jërë ngeen jëf si uh, seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak uh, déglu bi ngeen a déglu uh, Q Radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bi ñu duppee jotaay yu li nga xam ne moo regal xibaar yi. ñu fesal li nga xam ne moo di boppi xibaar yi lu toll si rek daal ñeneenti ndaw soqee ko si rek réew li nga xam ne rek daal moo di rek réew yi Afrique sow janta bokk na si réew li nga xam ne moo di rek daal Gambia daal dinañ nag daal tàmbali ñaari fanu ndaje yoo xam ne dañoo nag daal waxtaane li nga xam ne daal moo di pexe yi nga xam ne moom lañ war a nag daal di tëral mu na nag daal di moytandiku li nga xam ne daal moo di rek wécceeku eh, jaww ji dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moo di rek daal xibaar yi kuréel gi ñu xamee si GIS ECOWAS ñoom nag daal euh, ñoo nag di jël li nga xam ne moo di ay jumtuwaayu euh, jàngukaay yoo xam ne daal euh, buñ ko doon xayma si rek daal koppar war naa toll si rek ñaar fukki junne si koppar yi di koppar li nga xam ne moo di rek daal tugal jébbal ko li nga xam ne daal moo di jàngukaay war a nag daara ji ñu si rek daal di Gambia College School of Nursing and Midwifery nekk foofu si diwaanu li nga xam ne moo di rek daal Banjul dinañ ko yaatal si biir xibaar yi lu rek toll si rek daal ñaar fukk si li nga xam ne moo di rek daal ay nit soqeekoo si li c'est-à-dire daal kuréeli eh, eh, jàmbur yi ñu xamee si civil society organisation ñoom nag daal daal dañ ndar keppal li nga xam ne moo di nag daal ab tàggatu boo xam ne dañ leen doon tàggat nag daal lu aju si wàllu daal ana daal si nag yan anam lañ nag war a utalee seen bopp li nga xam ne moo di rek daal koppar te nag daal duñ nag daal wéeru nag si li nga xam ne moo di rek daal kenn dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yi ak yeneen gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal ñu di leen dalal beneen yoon fii si QTV tey nag di samedi yem ak fukki fan yeeg juróom si weeru julaay atum 2023 ñu rek yaatal li nga xam ne moo di rek daal xibaar yi li nga xam ne moo di rek ay ndaw yu nag soqee ko si rek daal réew yi li nga xam ne moo di rek daal sow janta mu di daal réew li nga xam ne moo di rek daal Gambie ak daal yeneen si daal ay nag ñetti réew yoo xam ne dañ nag daal yebal seen ay nag daal ndaw ñu nag daal tàmbali li nga xam ne moo di rek ñaari fanu ndak ndaje yoo xam ne dañoo nag waxtaanee li nga xam ne moo di pexe yi nga xam ne moom lañ nag daal war a tëral pour rek daal di fagaru wala daal mooy tëndiku li nga xam ne moo di rek daal wécceeku jaww ji gannaaw bi nga xamee ne nemmeeku li nga xam ne moo di rek daal wécceeku nag daal jaww ji dinañ nag li nga xam ne moo di daal ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne daf ko dee faral nag daal di indi li nga xam ne moo di rek daal askan te nag daal loolu lu ñu nag si li nga xam ne moo di rek daal addina si waaye nag rawatina si rek lu suufi li nga xam ne daal moo di rek daal Afrique gannaaw bi nga xamee ne nga xam ne moo di rek daal wécceeku li nga xam ne moo di rek daal jaww ji nag daal indil na nag daal askan wi ay jafe-jafe surtout ñi nga xam ne ñoo dëkkee si nga xam ne moo di daal suuf li nga xam ne moo di daal na ñenn nag si askan wi nag daal di faral di ñàkk ñàkk li nga xam ne moo di daal seen bakkan ñenn ñi nag daal xiif nag daal di sonal lu nag waral ñu nag daal tàmbali nag ñaari fanu ndaje yoo xam ne dañoo nag a daal fagaru wala si rek daal li nga xam ne moo di daal ndaje mi nga xam ne tàmbali nañ ko si ndaje mi ki ñu xamee si Jeynaba Fati Murthy nga xam ne moom nag moo nekk monitoring and evaluation officer si rek ministry of environment yëkkati fa daal kaddu wax nag ki nga xam ne daal moo rek daal permanent secretary li nga xam ne daal forum bi wala ab ndaje nag bu am solo la xam ne li nga xam ne sax moo sabab nag mooy nag daal waxtaanee li nga xam ne daal a moom lañ war a def nag daal mun fagaru daal di nag mooy li nga xam ne daal moo rek wécceeku jaww ji indil askan wi li nga xam ne moo di rek daal euh, euh, jafe-jafe li nga xam ne moo di nag wecceeku jaww ji nemmeeku nañu daal dinay ay réew yu bëri si rek daal suufi li nga xam ne moo di rek daal Afrique rawatina li nga xam ne moo di rek daal réewu Gambie li nga xam ne sax daal moo koy firndeel mooy nag li nga xam ne moo di rek daal euh, taw yu ak tamit li nga xam ne moo di mën na mu bëri nga xam ne dinay nag daal faral di indil askanu Gambie li nga xam ne moo di rek ay jafe-jafe xam ne lañ lii yëpp nag daal wecceeku nag daal jaww ji nag daal moom moo ko nag daal di waral si ndaje moomu tamit ki nga xamee si rek rox Abdullahi euh, John Manjang nga xam ne mooy ministre wala jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dénk alam ngeek waruwaay gi di rek daal of environment yëkkati na fa daal kàddu ne daal li nga xam ne moo daal moo di rek daal yi nga xam ne moom lañ nag daal war a nag daal di tëral ak li nga xam ne mooy daal jumtuwaay yi nag daal dañ war a fexe nag daal ñu nag daal di si nag daal taxaw bu baax a baax mun a nag daal di fagaru moytandiku li nga xam ne daal moo di rek daal wécciku jaww ji gi nga xam ne dinay faral di indil askan wi li nga xam ne moo di rek daal jafe-jafe moom ki nga xam ne moo di rek daal bi daal wax na ne li nga xam ne moo di buntam bi ñoom nag daal dinañ fexe nag daal def seen kéem tolluwaay li nga xam ne moo di rek daal kattan fexe daal di nag tëral ay pexe fexe tamit ay jumtuwaay nag daal ñu nag daal di ko am fexe nag daal ñuy mun a daal di muy tëndeku li nga xam ne rek daal moo di rek daal wecceeku jaww ji nga xam ne dinay faral li nga xam ne daal jafe mu ngi nag soxee ko si rek daal ab mbootaay boo xam ne mu ngi foofu si réewum li nga xam ne daal moo di rek daal Canada moom mi nag dee teewoon ne moo di rek daal ndaje mi ne daal li nga moo di rek daal ndaje mi nag ndaje la gannaaw bi nga xamee ne la yoo xam ne moom lañ nag daal di tàmbali pour rek daal gis ne li nga xam ne rek daal moo di rek daal askan wi dinañ leen nag daal di sol xam-xam wala daal yeleen bu baax a baax si daal nag daal naka la ñu war a daal di fagaroo muy tëndiku li nga xam ne moo di rek daal wécceeku nag daal jaww ji nga xam ne dinay faral di indil askan wi li nga xam ne daal moo di rek daal ab nag daal jafe-jafe bu ñu sukkandikoo rek si li nga xam ne moo di rek daal ay kàddoom ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar li nga xam ne moo di kuréel gi ñu xamee si GIS ECOWAS ñoom nag daal ñoo nag daal di jël li nga xam ne moo di ay jumtuwaay yu li nga xam ne moo di daal njànga daal di ko nag jébbal li nga xam ne moo di jàngukaay wala daal daara ju kawe ji ñu xamee si di Gambia College School of Nursing ay jumtuwaay yoo xam ne buñ ko doon xayma si koppar war naa toll si rek ñaar fukki junne si li nga xam ne moo di koppari euro di koppari li nga xam ne moo di rek daal tugal li nga xam ne moo di rek daal jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ jébbal daara ji ak na daal ay jumtuwaay yu am solo bokk na si jumtuwaay yooyu li nga xam ne daal di daal eh, ñiy jàng ak ñi xeetu eh, machine yooyu ñu si rek daal laptops bokk na si tamit li ñu si eh, printers desktop computer ak tamit li nga daal moo daal ab nag daal payeur boo xam ne daal dinañ ci fayal lu toll ci li nga xam ne moo di rek ñaar fukki daal ay njàngaan yoo xam ne dinañ leen nag rek daal daara ju kawe jooju ñu xamee si di Gambia uh, College School of Nursing te nag daal xeetu xam-xam bi nga xam ne moom la daal njàngaan yooyu nag daal di sàkku bokk na si li nga xam ne moo di xeetu xam-xam boo xam ne nag daal uh, dinañ nag daal nekk nag ñoo xam ne dinañ bugg di uh, saytu ñi nga xam ne daal dañ am feebaru li nga xam ne moo di daal xel si rek daal bi nga xamee ne ñu ngi leen di jébbal jumtuwaay si ndaje boo xam ne amal nañ ko keñ xamee si Fatoumata Ba nga xam ne moom moo jiite jàngukaay wala daara ju kowe jooju ñu xamee si di Gambia College School of Nursing and Midwifery di jàngukaay boo xam ne dañ fay faral di rek tàggat nit ñi lu aju nag nekk si wàllum xeetu euh, métier boobu ñu xamee si rek daal noosin yëkkati na kàddu delloo njukkal li nga xam ne moo di kuréel googu xamee si jiis ne daal seen nag daal ndimbal bi nga xam ne moom lañ leen dimbalee ñoom daara ji kowe jooju lu ama am la wax na daal lii nag daal ñoom jiis nag lu ñu nag yàgga def la gannaaw bi nga xamee ne ñoom nag daal euh, daal tàmbali woon nañ leen nag dimbale njëkkoon lañ leen njëkkoon lañ leen a dimbale li nga xam ne moo di ay téere yoo xam ne euh, jëfandoo nañ ko bokkan li nga xam ne moo di tamit nag daal li nga xam ne moo di ay yoo xam leen pour rek daal ñu sàkkoo xam-xam ci li nga xam ne moo di rek daal daara jooju moom nag daal rafetlu na bu baax a baax li nga xam ne moo di ndimbal bi nga xam ne jiis mu ngi koy jàppale li nga xam ne moo di daal daara ju kowe jooju moom nak daal dina wane jàppale bi nga xam ne moom lañ leen di jàppale nag daal dafaa yombalal ñoom ñi nga xam ne ñooy jàngal njàngaan yi nag daal si nag daal xeetu xam nga xam ne moom la ñoo sol li nga xam ne moo di daal njàngaan yi ki ñu xamee si Mariama Ascroft nga xam ne moom nag moom nag moo jiite li nga xam ne moo di mbootaay ba ñu xamee si jiis nekk fii si biir réew mi moom nag daal dina wane nag daal ñoom nag li nga xam ne moo leen nag daal di taxa a jóg mooy nag daal di fexe nag daal di nag daal jàppale ñi nga xam ne daal dañ leen nag war daal di jàppale te nag wax na ne li nga xam ne moo di nag lëkkaloo bi nga xam ne jiis lëkkaloo na ko ak daara jooju ñu xamee si rek daal di Gambia College School of Nursing ab nag lëkkaloo daal bu ama am solo la boo xam ne li sax sabab ñu def ko nag mooy nag daal dañ nag nemmeeku ne li nga xam ne moo di xeetu xam-xam bi nga xam ne mooy nag daal moom la ñoo sol ñen na ñoo xam dañ war di saytu li nga xam ne moo di ay ñoo xam daal dañ am feebaru li nga xam ne moo di xel dañ nag gis ne li nga xam ne moo di xeetu xam-xam boobu nag dafa dellu gannaaw loolu nag moo waral nag daal ñoom ñu dugal seen nag loxo si li nga xam ne moo di rek daal mbir mi fexe nag daal ñi nga xam ne ñooy sàkku xeetu xam-xam boobu nag daal ñu nag taxawu leen fexe nag daal jàppale leen ak li nga xam ne moo ay jumtuwaay yoo xam dinañ nag yombal seeni nag daal ab nag daal euh, njàng euh, daara jooju ñoo xamee si The Gambia College School of Nursing nag daal ab nag daara daara la joo xam ne nag daal euh, mun nañoo wax ne daal si rek daal bu yàggul lañ nag tàmbali nag di jàngale li nga xam ne moo di daal ab xeetu xam-xam boo xam ne nag daal dinañ ko sol nag ay nit ñoo xam ne daal nag ndar keppee ndar keppale seen ab njànga dinañ nag daal di mun a saytu bu baax a baax dañ nag daal amee li nga xam ne moo di daal feebaru xel si ndaje moomu tamit ki ñu xam ne moom mooy principal wala sax moom moo jiite nga xam ne moo di daara jooju ñu xamee si Gambie Gambie collège ak ki ñu xamee si Aïssatou Cissé nga xam ne moom ab njàngaan la wala ab student la dinag sàkku xeetu xam bi ñu xamee si mental and euh, psychology psycho social euh, support euh, programme nga xam ne moom xeetu xam-xam nga xam ne moom lay sa moom lay sàkku wala moom lay jànga mooy nag daal bu fekkee ne daal ndar keppal na ab njàngam dina mun a nag saytu ñi nga xam ne dañ amee feebaru li nga xam ne ne moo di moom mi nag daal sant na gërëm na si turi ñi nga xam ne ñoo daal ay naataangoom sant na gërëm euh, kuréel gi ñu xam ne euh, moom daal di euh, taxaw nag ñi nga daal njàngaan yi te nag daal wax na daal dimbal bi nag daal dina leen gën a yombalal seen nag ab wàllu li nga xam ne xam ne nag moom mooy assistant director of health and services nga xam moom moo fa teewaloon ministre wala jëwriñ ñi xam ne moom lañ dénk wérgu yarami askan yi moom nag daal dina wax ne xam ne daal ñoo di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wérgu yarami askan wi nag daal li ñu nag nemmeeku mooy nag lu aju nag si wàllum feebaru li nga xam ne moo di daal xel gis nañ nag daal mu ngee nag daal bëri lool fii si ñu ngi def a a moo di daal feebaru li nga xam ne daal moo di rek daal xel moom sax daal dina wone daal mu ngi tamit rafetlu lu baax a baax li nga xam ne moo di kuréel gi ñu xamee si gis euh, nag jàppale bi nga xam ne moom la ñoo jàppale lu toll si rek ñaar fukk si daal ay njàngaan yoo xam ne dinañ leen fayal seen ab njàng pour daal ñu nag saako xeetu xam-xam bi ñu xamee euh, si rek daal mental and health euh, programme maanaam fexe nag saako xam-xam boo xam ne buñ ko nag ndar keppalee dinañ nag mun a daal di saytu ñi nga xam ne dañ amee li nga xam ne moo di daal feebaru xam ne daal jàppale bi nga xam ne moom la daal gis di nag jàppale li nga xam ne moo di nag daal njàngaan yooyu moom nag daal loolu nag daal lu mu nag daal rafetlu la bu ñu sukkandekoo euh, si rek li nga xam ne moo di daal ay kaddo moom docteur Fatoumata Diba di assistant director of health and services teewaloon fa ministry of health ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal lu rek toll si rek daal ñaar ñaar fukk si li nga xam ne moo di rek daal ay nit nga xam ne ñu ngi nag soqeekoo si li nga xam ne di rek daal ay mbootaay jàmbur yi ñu xamee si civil society organisations ñoom nag daal jeexal nañ wala daal ndar keppal nañ nag li nga xam ne moo di ab tàggatu boo xam ne daal ñu ngi ko doon nag daal amal ab tàggatu la boo xam ne li leen doon tàggat nag daal mooy daal si yan anam nag lañ war a daal di fexee utal seen bopp li nga xam ne moo di rek daal kopparte nag daal bañ a sukkandiku si daal benn li nga xam ne moo di rek daal mbootaay nga xam ne moo di nag tàggatu bi ñinga nga xam ne ñoo ko sab wala ñi ko amal moo di kuréel gi ñu xamee si li nga xam ne moo di community action support association a xamee si rek daal euh, kaasa ñoom nag si nag lëkkaloo ak beneen kuréel gi ñu si euh, change di game academy ak daal yeneen si li nga xam ne moo di daal seen i daal ay nag daal euh, naataango daal di nag tàmbali ab tàggatu boo xam ne tàmbali woon na keroog lundi nag ñu ngi ko nag daal ndar keppal wala ñu ngi ko jeexal keroog li nga xam ne moo di daal ajuma bi nga xam ne nag ñu ngi ndar keppal wala bi ñoo jeexal li nga xam ne moo di daal juróomi fanu nag daal daal daal ñoo ko nag teewee woon nag daal nga xam ne ñu ngi leen doon sol xam-xam nag daal mujjeen leen a jox li nga xam ne moo di certificat maanaam jox leen nag ay lijaasa yi firndee na daal ñoom teewee woon nañ li nga xam ne daal moo di rek daal juróomi fanu li nga xam ne moo di rek tàggatu boobu si rek daal ndaje moomu ki ñu xamee si Ibrahima Diatta nga xam ne nag moom mooy chairperson si kuréel gi ñu xamee si Community Action Support Association si gàttal di CASA moom nag daal dina wane seen gi nag daal ab kuréel la goo xam ne ñu ngi nag tàmbale daal ñoom seen nag daal taxawaay bokk na si euh, fexe nag daal taxawu nag wàllum li nga xam ne moo di rek daal njàng mi euh, fexe tamit taxawu li nga xam ne moo di rek wàllum euh, wér-gu-yaram wàllum li nga xam ne moo di rek daal mbay ak wàllum li nga xam ne moo di rek daal tàggat yaram waaye nag jamono ji li nga xam ne moom lañ tàmbalee def nag daal mooy fexe tamit di daal tàggat li nga xam ne moo di rek daal ay nit sol leen li nga xam ne moo di rek daal xam-xam moom daal dina wone li nga xam ne moo di tàggatu bi nga xam ne moom lañ doon amal tàggatu nag daal bu am ne ñi nga xam ne ñoo ko teewee nag daal sol nañ leen li nga xam ne moo di xam-xam si daal nag daal yan anam lañ nag xam ne si executive director si kuréel gi ñu xamee si sant na gërëm li nga xam ne moo di kuréel gi nga xam ne ñoo amal li nga xam ne moo di daal tàggatu bi daal lu ama am solo la gannaaw bi nga xam ne wax na ñi nga xam ne daal daal ñoo teew woon nag daal tàggatu bi nga xam ne ñu ngi leen doon sol xam-xam ñoom nag li nga xam ne moom lañ fa jëlee nag daal dina leen njëriñ nag daal bu a baax gannaaw bi nga xamee ne sol nañ leen xam-xam daal si a daal di euh, a daal li euh, lu am solo la si rek daal moom gannaaw bi nga xamee ne na ne moom nag daal lu aju si euh, si rek wàllum civil bi nga xam ne daal am na si lu toll si rek am na si lu toll si fukk ak juróom jàpp nag ñaar a si daal ay at yoo xam ne mu ngi nag yëngu si rek li nga xam ne moom ne daal teew bi nga xam ne moom ñoom lañ doon nag daal tàggat nag daal lu mu nag daal kontaan la gannaaw bi nga xam ne daal wax na ne lu ama am solo te nag daal ñaax na ñi nga xam ne ñoom lañ doon nag daal taggat daal ne daal nañ fexe daal di njëriñoo bu baax a baax li nga xam ne moom lañ jëlee si rek juróomi fanu tàggatu yooyu Lamanu Ramarana Jallow kon moom di executive member bokk si Mama Africa for Gambia moom mi nag daal dina wane daal pour rek daal suqali euh, suqaliku nag daal faaw nag ñi nga xam ne ñoo di askan wi wala nit ñi nag daal ñu yokk yokkaleen xam-xam daal fexe nag daal ñoom it nag daal ñu mën a suqali euh, seen bopp bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo daal kàddoom moom na ne nga xam la teewoon euh, la gannaaw bi nga xam ne daal jëlee na fa li nga xam ne moo di daal xam-xam boo xam ne amut ko woon Awa Touré jógee ko si red si Red Cross moom mi nag daal dina wax daal ak tàggatu bi gannaaw bi nga xame ne wax na ne laata nag daal mu doon ñëw si rek daal béréb bobu nag daal bu fekkoon ne daal xam-xamam téeméer la woon juróom ñetta ñetta fukk yi nag daal la amoon waaye nag fi mu nekk daal téeméeram yi daal mat na bu ñu sukkandiku rek si li nga xam ne moo di kàddu wax daal li nga xam ne moom lañ ko sol si xam-xam nag daal daal jàppane daal dina dina ko mën a njëriñ njëriñ li nga xam ne moo di daal askanam bu ñu sukkandiku si rek daal ay kàddoom moom Awa Touré jógee ko si rek Red Cross Society xibaar bu euh, mujj li nga xam ne moo riir daal ab euh, kuréel euh, gi ñu xamee si non profit organisation nga xam ne ñoom dañoo yëngu si loolu ñu xamee si care for reproductive health maanaam dañuy faral nag di askan wi lu aju si wàllu nag daal bu fekkee ne daal nit ki nag daal tàmbali naa nag daal nekk li nga xam ne moo riir daal ab mukalaf tàmbali nag daal gis nag daal ay biir nag daal si rek li nga xam ne moo riir daal yaramam si wàlla daal lañ def faral nag di di yee askan wi si rek wàlla woowu keroog alxames nag daal ñoom ñoo amal nag daal benn fanu nag daal daal ndaje boo xam ne dañ ci doon nag daal yee ñi nga xam ne daal ñoo di rek daal askan wi bokk na si ñi nga xam ne daal ñoo di daal ay waay laago yoo xam ne ñii nag daal dañ lu ñii nag daal di te ñu jógee ko si rek daal daara ji ñu xamee si Jane St John School for the Deaf euh, nga xam ne daal si rek daal euh, Gambia Organisation of the Visual Impaired maanaam ay kuréel yoo xam ne daal ay aji waay laago nag yoo bokk nga xam ne di rek daal kuréel yooyu lu waral na nag daal ñi nga xam ne daal seen xam-xam màcc na si rek wàllu wér gu yaram surtout nag daal si wàll wi nga xam fekkee ne euh, nit ki nag daal euh, mu ngee nag daal tàmbale nag nekk li nga xam ne moo daal ab mukkalaf li nga xam ne moom lay faral di tàmbalee gis si boppam moo xam góor la wala jigéen euh, ñu nag daal fexe nag di nag yee askan wek si li nga xam ne moo di daal wàllawu ñu amaloon nag daal ab bés boo xam nag daal dañ ko jagleel ñi nga xam ne ñoo di rek daal ay ay ay woji ay aji way laago si ndaje moom ki ñu xamee si Fatou Sané si seen nga xam ne moom moo sos li nga xam ne moo di kuréel gi ñu xamee si care for reproductive health moom nag daal dina wane nag daal li nga xam ne moo di daal ndaje mi li ko sabab nag daal mooy nag daal jàpp ne ñi nga xam ne ñoo di daal ay xale yu góor ak xale yu jigéen war nañu nag yee bu baax ba bu fekkee ne daal tàmbale ñoo nag nekk mak mukalaf eh, li nga xam ne moom la ñoo faral nag di tàmbale si seen yaram nag daal war nañoo fexe ñu nag daal yee leen si nag daal bu baax a baax surtout ñi nga xam ne daal dañ nag nekk nag ay nag nitu ay aji way yoo xam ne gis nañ ne wàlla woo nag dañ ci nag daal di euh, tumuranke euh, Daniel Mendy nga xam ne moom mooy principal si rek jàngukaay boobu ñu xamee si St John School for the Deaf moom nag daal dina rafetlu bu baax a baax taxawaayu kuréel gi ñu xamee si rek daal euh, care for reproductive health ne daal seen nag taxawaay pour rek daal yee li nga xam ne moo di xale yu jigéen yeeg yu góor yi bu fekkee ne daal tàmbale nañoo gis nag xam ne moom la ñoo tàmbale gi seen ab yaram nag daal fexe nag daal yee leen si surtout ñi nga xam ne daal ñu di ay ajuwaay laago loolu nag daal lu mu nag daal xam ne moo tëral ay kàddoom gannaaw bi nga xam ne wax na ñi nga xam ne ñoo di ay aji waay laago nag si wàlla woowu dañ ci nag daal tumuranke bu baax a baax bu ñu sukkandeko si ay kàddoom si ndaje moomu tamit ki nga xam ne moo fa teewaloon ministre wala jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dénk euh, njàng mi euh, moom nag ñu xamee ko sax te sax moom sax daal ab nag noos la ñu xamee ko si Fabien Ina Grande Sagnang moom nag daal dina wane ñi nga xam ne nag daal ñoo di daal ay aji waay laago nag daal wàlla woowu nag daal dañ ci nag daal di euh, tumuranke maanaam askan wi duñ leen si dee faral nag di nag di leen si bàyyi xel te nag wax na ne di nag daal waral na li nga xam ne moo di rek daal bunta bi nga xam ne ñoom lañ jënk wàllu njàng mu suufe meeg njàng mu digg doom bi ñu xam ne si ministry of basic and secondary education nag daal ñu ngi nag lëkkaloo bu baax a baax ak daal yenn si li nga xam ne moo di rek mbootaay jàmbur yi nga xam ne si civil society organisations euh, fexe nag daal tamit li nga xam ne euh, moo di daal euh, ndaw ñeek li nga xam ne ndaw ñi góor nag ndaw ak ndaw ñu jigéen ñi fexe nag daal di leen yee si rek daal wala wi nga xam ne moom lañ xamee si reproductive health maanaam xam-xam si nag daal bu fekkee ne daal tàmbale na ñëw nag nekkal li nga xam ne moo di mukala fexe di leen yéen ak si nag daal wala wu ne daal lii ñoom ministry of basic and secondary education nag daal ñu ngi see lëkkaloo ak yeneen si li nga xam ne moo di ay kuréel fexe nag li nga xam ne moo di daal mbir mi daal di ko nag daal wasaare bu ñu sukkandikoo rek si li nga xam ne euh, moo di daal ay kàddoom moom soxna si ñu xamee euh, si rek daal euh, Fabian Ina Grant Sanyang